après sa prestation de serment Rama Boy kon président wax na. discours bu responsable bu génn ci làmmiñu ko responsable tàbbi ci nopp ñu responsable Ibrahima discours bi dal na xel tey nag euh, discours bi euh, daal euh, mën nañ ci am yaakaar gu bëri bëri bëri. dafay dem nuyu soxnaam yi. maanaam les premières dames Rama Boy loolu la ñuy wax. yow mi am na solo. sàkku ay ay ay ñaareel saa su ne yàkkamti <laughs>